seen génération yi bokk bokkul nag la rek Ameth ci ñoo bokk génération ñoo nekkandoo woon. Ramadan waaw yéen a quinze ans. Mhm. waaw. Mhm. Mhm. ñoo ko mag waaye mënuñu ko jur. papa lañ ci moom nag. waaye daanaka ñoo bokk génération de. Euh, papa nag du man nga koo mag sax mhm. sa papa mën nga ko mag mën nga mag sa yaay mhm. sa mag daal nga mënta mag mhm. euh, man wax boo xam ni dañuy waxu gaaru waale la man non seulement wax ji xawma lu wax yow lan la wax loolu la wax dani non non gaaral bi maanaam lan moo tax ñu ne lii Ameth Thiou moo ah, Ameth Thiou daal dafa nii waale da ko doon gaaral waaw gaaral bi xanaa balaa ngay wax gaaral da ngay naan lii la wax lii wax ba ni moo tax ñu ne daf moom la. Wally daal wéy na daal di ne ni ma ni ma mel moom yàllaa ma ko def fi ma yegg yàllaa ma fi indi kenn indiwu ma fi. waaw loolu moom dégg nañ ko ñun ci wéy. ci ah, loolu mooy gaaral bi loolu mooy ah, la loolu la Ameth Thiou di wax wóoruñu mais tamit Wally da ko gaaral sur seen waaw kon léegi laajal Ameth Thiou naa ko ci wéy ji. wéy wéy wéy wéy Wally bi footi nga. Mhm. da ngay for rek. ci wéyu mbaam yow foo toll di for. joye <laughs> joye for <laughs> waa léegi <laughs> euh, yéen ñi nga xam ne tey yéenay mag nekk fii hmm? tey waali ni nga ko waxee papaam nga Euh, ki nga xam ne ni ma ko waxee kay. waaw papaam sax parce que nag yaa papa ma bokk ndey ak kon papaam nga donc tey euh, bu bu bu mbir demee ba tollu fii ki nga xam ne mooy Ameth Thiou comme ni ma ko waxee yàgg ak ki nga xamante ne mooy. Euh, bokk ci bi bokk ci famille bi. Mm. donc tey bu bu bu lu mel nii amee tey est ce que tey yéen a ngi ciy dox ay jéego ngir ki nga xam ne mooy Wally Seck ak Ameth Thiou jaama dellu si seen diggante parce que nag Ameth Thiou taxawoon na wax ni moom du ma sa génne Ramadane kenn mënu koo génne Ramadane kon bu ëlbatikoo defee nii euh, dina doon lu ñu jaaxal te xëy na tamit amul lu ko neex. am na mm, yaa ngi tontu yaa ngi tontu Ameth Thiou xaw ma yëg nga koom déet. nu ma ko tontoo. ah yow de yaa ni. waaw. moom dañ ni kenn mënu koo génne Ramadaan. Mm-hmm. waaw loolu la waxoon. ah loolu la waxoon si premier sortem ndax coon. Mm-hmm. compagnon bu yàgg la. Mm-hmm. waali doomu coon. coon. waaw léegi bu fekkee ni waali def na ko lu ko naqari. mbaa mu wax ko ko kon moom war naa sedd coon sekk ginnaaw danga ni kii yàgg baayam la woon mhm. ngeen ànd mhm. dund lu neex dund lu mhm. naqari li mbër mi naan xam naa victoire xam naa defet xam naa match nul nga ànd koog baayam ba tey jii moom ñëw nga jàppale ko nag parce que Ameth Thiou nag ku jàppale Wally la ak Amady Badiane ñëpp macha allah tey ñu dem ba li ñuy wax problème ah. ma yaakaar ni tey kon euh, Thione bi mu fi jegee yàggul. dëgg la yàggul dara. déedéet. kon Ameth Thiou mën na sax taxaw place Thiona. Mhm. man lépp sama kanam la. dëgg li ma wax rek problème yi su amee li gënoon a rafet. Mhm. mooy comme c'est une famille. Mhm. le linge sale se lave en waxtaan. bu fekkee dañuy xuloo sax ñoo xam. Mhm. ba kiraa ku mel ni kiraa du ci jot. man maa sonn ku mel ni Aïcha du ci jot <laughs> mel ni Alburaax du ci jot. ak aji ñoom aji ku ne yor say caméra. bëgg loolu moom bokk na bokk ci liñ ko reproché que wax ji waru ko woon génnee ci penc mi. wax man xam nga mhm. démb bi may def émission fii mhm. man woo naa Amath Thiou dugg boîte vocale après mu rappelé ma. rappelé la wax. non li ma wax kay. Mm-hmm. loolu man ak moom la. doon ci ma la parce que man li may li may wax. Mm-hmm. parce que yont yàlla Muhammad aw ma ci lu may nëbbu. wala lu ma ci faralaate. Mm-hmm. parce que bu faral doon am man sama doom lay faral. la. mais du ma doxe noonu. damay wax sama xalaat man daw ma ci kenn yéen a fii ñëw di ma laaj. bu ngeen ma laajee sama devoir mooy ma xam ci li ma ci wax li ma ci wax ma ah, li ma ci xam ma wax ko ci. Mhm. seet ci yàlla rek. Mhm. wax rek te yàlla tax. ndax am amuñu droit nag parce que du lu ma waali defal du lu ma amet yu defal. Mhm. bu wax rek te yàlla tax. dama cee bokk nag moo tax ngeen boole ma ci. dama laaj. moo tax du ma daw sama benn responsabilité ci loolu. j'assume. parce que boo juree doom moomatoo sa bopp. loolu moo tax njaboot gi ñun bu ñu leen taxawul kan moo leen di taxaw. man mun naa toog lu yàgg du ma gis wàll duma ko dégg du ma xam ci lu mu nekk. Mm-hmm. bombaal yi noonu. Mm-hmm. manjaay mi sa leel dinaa toog du ay mag ay mag lañ léegi. Mm-hmm. dañu war a jël seen destin en main di tux mais nag ñu am kilifa. ba nga xam ni lu lu jóg tamit seen kilifa yi liñ ci war a dox ñu dox ko liñ ci war a wax ñu wax ko ci. li rek la. interview yu bëri ngay gis ak. Mm. may accepter yooyu parce que. Mm. dëgg la place waajur mm-hmm. mm-hmm. la. loolu am na. bu fi coon nekkoon. billaay moom mën na besam. dëgg la loolu moom da koy da koy affronter. dafa mm-hmm. ko ba mu saf li ci war yëpp mu da koy def. mais nekku fi sax xëy na du demee nii. waaw bu fi nekkoon sax voilà. merci beaucoup. tey bu fi nekkoon. du demee nii. dëgg comme nekku fi ñun ñoo fi nekk. waruñu daw. dëgg la dañu war a coon mm-hmm. maak moom ñoo bokk ndey ak baay léegi bu fi Mapenda nekkoon Mapenda mooy taxaw mm-hmm. mais nekku fi mm-hmm. Keba sama rakk la Assane Ndiaye mi ngi fi Mor Dior ma nga Amérique Ablaye Naar wayul feccul tëggul mooy taaw ñi ci des ay jigéen lañu te jigéen ñi góor ñi duñ fi nekk jigéen ñi di ji affronté yenn yi. te dëgg la lii moo waral wax ci. <laughs> léegi est-ce déggante nga ak Waly bi coow li amee ak léegi. ba tey déggante woo ci ak moom. amet rek nga jot a déggante. ah amet ci moom moo dama ko woo jotuma ko. jotoo ko su ma amee lu may wax. Hmm. amet ci laay waxal. ma wax ak Waly. lan moo tax Waly doom la. Hmm. xale la. Hmm. ñoo ko bokk am nga mais tey am nga sañ-sañu ne Waly defal lii mu def lii. bu baax. bi problème amee entre moom ak. Euh, oustaz mhm. Matar Sarr xaw ma ba ay affaire plainte ak yooyu damaa dem bañ mhm. mu ko jëlal lépp nga gas teg ci suuf ndeysaan mu def ko mhm. mais c'est pas toujours comme ça parce que tey jii bu fekk am problème mën naa yegg foo xam ne bu demee ba yegg fa ñu a ah ah waa kër papa mi de seetaan nañu ko ndax tey jii bu fi papaam nekkoon moom mooy gérer du demee nii dëgg la. waaw léegi nag ginnaaw deret moo ñu tooñ. Mm-hmm. kenn ku ci nekk li nga ci war a taxawee. Mm-hmm. nga taxaw nee naa la fii wala dinaa toog lu yàgg duma ko dégg duma ko gis barke Seydina Muhammad. du lay woo. dëgg li ma wax. Mm-hmm. waaye genn golo dafa gudd ba nga xam ne. wallaay loo ci laal loo ci laal borom yëpp borom yëpp. dëgg la tey jii bi problème amee wala lu mën a xaw. bu dee ci bombaali bu dee ci manjaay bu dee ci waali fañ koy defee wala fañ koy lijjantee ñun duñ ko yëg mm-hmm. waaye bu problème amee rek mm-hmm. ñu yëg ko la wallaay lu tax loolu mm-hmm. ah, deret la kilifa yi deret la dëgg moo ñu toon moo tax nag duñu daw man da duma daw sekk dëgg la ah, léegi eh, ki nga xam ne mooy Ameth Thiou bi nga xamante ne déggante nga ak moom ndax moom wax na la li nga xam ne moo ko naqari ba tax mu doxalee nu ne mel ba tax mu génn su ko waxee tam duma ko wax ah lii itam de metti na doo ma si wax sax dama dalal. su ma la ko waxee nga tasaare ko. déet du ma ko tasaare. àdduna bi yëg <laughs> ko. li nga ma bàkkee da ñaaw na. ah loolu mooy sa liggéey bi.